لو ملتي ميديا مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين يتزيار بخ مكو ييغا خامني نيوم ني اند اك نيون تي جوتايو دار بي دي جوتايو السلف مع القران نيوكاي امي تي كيرغي دي لا ميزو دي كورا او سينيغال موي بيت القران الكريم في السنغال مو نيك كير غو خامتيني نجابوتو القران الكريم غيب كو بوك waaye du nu fàtte mukk euh, jëmm yi nga xamante ne ñu nekk ay dong daara doomi daara yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy gunge ci jotaay yi nga xamante mooy jotaayu asalafu ma waaye ak mboolem seen jotaayu alquranul karim yi nga xam ne dañ koy génne ci kër gi di la maison du coran eh, loo multimédia ñuy jaay lépp loo xam ne jëm na ci matériel électronique fële ca Sandaga ku koo ci numéro yi di nga àgg ci ñoom waaye ak kër da baax textile nekk fële ca eh, marché Zeng ca pikin eh, ñuy jaay lépp lu jëm ci solu qualité yu baax a baax yoo xamante ne wax dëgg fi yàlla taaruk alquran daf ciy feeñ ku jokkoo ci numéro bi ci suuf aussi di nga àgg foofu ca marché Zeng nga ci ñoom di jëflanteeg ñooñ alquranul karim waaye di jaajëfal bu baax a baax sama ñaay ñaari yaayu tedd yi nga xam ne ñoo ñu jox yere bi muy soxna Mariama Diallo ak soxna Hawa Diallo euh, macha allah yal na yàlla buur bi subhanahu wa fay leen yiw ndaxtaaral nañ ma lool lool tey xam nga damaa rafetu ma sole dara rek daf ma yokku taal kon tey jii ñu daal di agsi ci eh, tomb bu am am solo muy inayatu sahaba bi hadal kitab ay inayatu sahaba bil quranil karim sahaba yi itte gi nga xamantene mom lañ joxone alquranul karim waye xër gi ñu xëroon pour alquranul karim mën gëna ñongé waye gëna waaye sammu ba dara du ca ko dara du ca yokku ba ci jitu ñu gis ibn al-khattab ba nga xamante waqaatul yamama muy xare bobé nga xamantene mom mo lañ netali won ci jotay bi weesu ba mu amé euh tit gamu tit mom ragalul ci jëm ya titul ci njabotam titul ci kenn waye xel mi daal dem ci alquranul karim motax mu dagg ay yite dem ci bakr Bakrin Sadiq radiyallahu anhum ajmain ne ko li ma gis moom mooy alquranul karim ñu daal di koy dajale ci benn téere waaye teewut ba nga xamante ne abubakrin euh, nangoogul teewut omar ibnu xataab di dellu si ci moom di naxante ak moom waaye itam ñu yégee ko itam ci abubakrin sadiq ba mu ko nangoo mu waaxu ba ci euh, zeyd ibne thabit daal di sàkku ci loolu ci moom euh, ba zeyd gisut loolu waaye abubakrin sadiq di naxante ak moom ñu moom bu baax baax waaye fi nga xamante ne foofee laa bëgg ñetti baata ngi nii ñu bàyyee ko xel dañ cey déggé bu baax sahaba yi ñu xëre won ci alquran waye ñun tay itam ñu daal di natt suñu bopp ñoom almuhaajiruun wal ansar bi nga xamantene xare baa ngi waaj commencé xare bi nar métti lool lool lool da nga dégg ñom ñu yuxu ya ashab suratil baqara ya ashab suratil baqara ana ñi nga xamantene ñom ñoo mokal surat baqara na ñi nga xamante ñoom ñooy ñooñ suratul baqara ana ñi nga xam ne ñoom ñooy àndandoo ana ñi nga xam ne ñooy waayu suratul baqara laa ilaha illa allah ñoom ba ñu bëggee soññante ci dara ñun fii léeg nga dégg nit daan euh, mu bëgg euh, fësal ab dëggoom mu ne man séeréer laa loolu baax na wala mu ne man bawal bawal laa wala mu ne man saraxule la la naam damaa yab saraxule yi waaw euh, da ngay gis mu tudd askanam pour bëgg wane dëggoom wala mu tudd santam bëgg wane dëggoom wala mu tudd fa mu bokk bëgg wane ne nit ku dëggu la asahaba xamal watish fii nga xamante ne nashibatil waga wan dalaat niiraan ay niiraanul garb niiraanul ني wartafaa al gubaar fii ñu taxaw ñu ne ana ñi nga xamante ne ñoom ñoo mokkal suratul baqara ana ñi bëgg suratul baqara ana ñuy jàng suratul baqara pour ñu wane ne bu kenn daw bu kenn joxe ginaaw pour lan gën wane seen njàmbarte ñu da tuddu alquranul karim bi ben la ci ñaar ki nga xamantene mom moy Salim Mawla Abi Hudayfa bi nga xamantene sahaba yi taxaw nañ parce que mom dafa xawoon néew katan waaye xaw nek xale donte ku mokal alquran la jambar la lol poste bi nga xamne fofé la taxaw nak mu nek poste bu xawa danger comme nenañ len ne mom ci xare bala gaño ci la fato muhajirun yi moy ñi jóge won Makka daal di gàddaay dem Madina fa ñu taxee woon ñu daal di xaw ragal tuuti pour non yi awé ci Salim agsi ci ñom parce que gis nañ ne mom dafa xawa néew katan biñ gisee loolu xaw a ragal loolu ci ñoom ci ci ci Salim ñu daal di koy junj est-ce que du changer poste Salim ne leen bi sa xaamilul qur'ani ana idan bi sa xaamilul qur'ani ana idan kon de nekk xanaa mokkalatuma alquran xam nga leeg nit ki bëgg def dara mu ne kon xanaa sama way sama ndey juruma wala xanaa nekkatuma diw nekkatuma diw kii ba mu bëggee saxal boppam dafa ne bi sa xaamilul qur'aani ana idan kon man nit ku mokkal alquran laa waaye ku amul njariñ laa nan lay mokkale alquran ba pare awma njariñ kon nekkatuma ku mokkal alquran waaw nekkatuma ku mokkal alquran xanaa allahu akbar kon yéen ñi nga xamante ne yéen a mokkal alquranul karim ki mokkal alquran kon fekk yaa ngi mokkal alquran di ndamoo tey sagoo li nga xam ne mooy mokkal alquranul karim kon nel lu ñaaw du awee ci man mukk àgg ci li nga xamante mooy alquran wala njabootu alquranul karim ku mokkale alquran ak man ti nek ci bir réew mi nel kenn du awé ci man pour jaay daara yi wala jaay serign daara yi wala toroxal ñooñ alquran nit ku mokkal alquran ku ñëw ci yow di jëw kenen ne ko xana man mokkaluma alquran jëlal sax mokkal alquran nga doxale ko ak rusa def lu ñaaw nit bu mu aw ci yow mukk di kumpuloo sa mbokum julit allahu akbar kon salim mawla abi hudhayfa ba mu taxawé ci biilee mawqif as-sa'ba saxaaba yi daal di koy junju xool ci moom xaw koo xeeb fa mu taxaw dafa leen bi sa xaamilul qurani ana idan kon xanaa nekkatuma waaju mokkal alquranul karim ba ca mujj ci al ibarat mu nekk qawlu abi xudayfa nga xam ne moom la ñu tëbee tëjee jotaay bi tey ba nga xamante ne xare bi tàng na lool balu fett yi di joge fu ci nekk mel ni ay biddéew mel ni ab taw ci asamaan saxaaba yi di wadd gaay yi di wadd ñenn ñi commencé daw أبي حذيفة دفا يوخو من يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال لا إله إلا الله في هذا الموقف الصعب في هذا الموقف الرهيب ci biilee taxawaay gaay yi di daanu fett yi di leen dal ñuy daanu di dee ñenn ñi gun guntux yi di leen dal ñenn ñi jaas yi di dal seen kaw subhanallah xeej yeeg lépp di dal foofee la yuuxoo yaa ahlal quraan yéen ñooñ alquraan من زين القرآن بالفعال رفت سن القرآن أي جف الله أكبر لي تخرب لكو أبي حذيفة وخيون يوخو صحابي بن يمجب نويكو من لن يا أهل القرآن ين ين القرآن يب دار تخو من لن رفت لن القرآن أي جف أي قاتلوا حتى الموت لكن لا تدبروا بلندو كنت يجي تجامل جيني تولو ماي ووات أهل القرآن جيب comme ni nga xam ne noonu leen noonu la abi xudayfa wooyo woon saxaaba yi ca xare ba di leen wax yaa ahla alquran yéen ñooñ alquran la ma ca namm mooy la ca saxaaba yi namoon ñi nga xam ne jot na noo mokkal alquran ñi nga xam ne ñu ngi ca daara ji di jàng alquran ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale alquran ñi nga xamante ne ay jàngkatu alquran lañ wala jàngalekatu alquran ñi nga xamante ne ñoom ñoo sopp alquran ñi nga xam ne lu ñu mënti mokkal ci alquran ñoom daal seenuk lenn taqi na ci alquran fu ñu mënti nekk kon yaa ahlal qur'aan zayyinu alqur'aana bil fiaal nañu taaralee alqur'aanul karim ak sunuy jëf njàng mi rafet na lool alqur'aan a ngi tasaaroo lool waaye jullit ñi tey la ëpp ci ñoom suñu soo jëflantee ak ñoom rek nga rëccu ko lu tax wor gi di bari ba ci daara yi wor gi di bari ba ci ñi nga xamante nee nañ dañoo mokkal alqur'aan te ku ñu jëflanteel ñu daal di lay tiriyan nee nga yow ci alqur'aan ngay dox daraa ngay sol mbaxaneb alquran ngay sol fu ñu la fekk yaa ngi kaamil gi te yaa gën a dëng garabu yoo koo jëflanteel koy lekk xaalisam rek ngay wër subhanallah nitu alquran du noonu waaw loolu ñëpp ko bokk amul ki ca daara ja ku nekkul ca daara ja parce que alquran ñëpp ko bokk bu ñu di waxati ahlul quran daal di koy jagleel ñenn rek képp ku sopp alquran ak lu mu mënti nekk nañu bàyyi teni ba teg ko fële ak lu mu mënti liggéey loolu leneen la loo mën ci liggéey te mu daggan rek yow soo bëggee alquran sa lenn di ca dem sa alal di ca dem wala sa xelaat wala sa xam-xam wala ngay dimbale wa alquran wala sax nga maandu ca bañ leen a lor yow ci ahlul quran nga bokk parce que yaa ngi jëfe li nga xam ne moom la borom bi subhanahu kon tey ji mooy la ma waxoon rek lay waxaat ayyuhal mujaazu ilman xaawil an tujaaza xuluqa yow mi jàng am ay lijaaza ci xam léegi xam-xam Sénégal niveau bi yéeg na lool ci côté ci côté diine gars yi taxaw nañ lool waaye niveau jëfe gi jëfe gi moo wàcc lool ba ci suuf kon nañu jël alquran gi ñu jëm ko koo ak suñu jëf euh, kon lii moo nekkoon suñu jotaay asalafu ma alquranul karim ñu doon ko amee fii ci la maison du coran au Sénégal ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaani salla al ilahu ala nabi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu l'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques bureautique, électronique, réseau, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous.

L'eau multimédia moo leen di may seen émission assalafou ma al quran